ابتدى بحمد نفسه قبل أن يحمده كل حامد وأحب محمدا وقلقه لذاته وعدبه وأحسن تعذيبه ثم مدحه في محكم كتابه وترتيله فقال جل من قائل وإنك لعلى خلق العظيم وصلى عليه بذاته هو والآخرين أن يصلوا عليه ويسلموا فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كان ذلك غاية التعظيم والتنويه بقدر هذا النبي البر الرؤوف الرحيم ولن يعظمه أحد بعد هذا التعظيم بمثله ولم يبق إلى التبرك بذكر أوصافه وخلقه التي عظمها الله تعالى وتلذذ بسردها وتفصيلها وإلا فليس للمادحين ما يقولون بعد هذا ماذا يقول إنه لجليل لا ليس لهم ما يقولون إلى التكرار وتفصيل ما أجمله سبحانه وتعالى في مدحه ليتلذذوا به ويتبرقوا فينالوا به رضاه تعالى الذي أوجب الذي أوجب على نفسه أن يصلى عشر على كل من صلى عليه صلى الله عليه وسلم مرة وذلك وذلك لشدة اعتنائه بحبيبه صلى الله عليه وسلم وما الصلاة عليه لتعظيمه بألفاظ تدل على عظمته وعلو قدره مع إظهار المصلي عدم قدرته على القيام بها فيرجع إلى من كلفه بذلك بكل خضوع وانكسار وتذلل وتضرع سائلا وطالبا من جلالته وعظمته سبحانه وتعالى أن ينوب عنه بمحض فضله وكرمه في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أيها المعالي والسعادة أصحاب المعالي والسعادة أصحاب الفضيلة والشيوخ إقوة الإيمان والإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الخليفة العام الشيخ الهادي إبراهيم أسوان أتى الله عمره وبقاه وباسم النبي نبيه المكلف بالتربية والتعليم في مدينة أسوان الشيخ الهادي عبد الله كرم أسوان وباسم شقيقه وسفيره بالدكار الشيخ الهادي أحمد صوان رحمتنا وباسم جميع كل فرد منكم على أرض سنغالكام والله والله إننا لنجد هذه الليلة فرصة صائحة في اجتماع لأمة المسلمين من هذا الشهر المبارك ألا وهي ليلة القدر التي فرض الله صيامه عليكم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وسننتي نبيه قيامه لكم فمن صام وقام إيمانا واقتساما خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه baadiŋol na ala taala kon na tento kola ka salkilama sallallahu alayhi wa sallam ka badin nala ñimmal be konto moro toyala ka alala lumtawol konton ka jati ñimmal min yalan ko ŋe tara jang ke konto moro toyala suwokuuta elhaaji yusuf seydiya banne ay beeyitandi ay mooɓe wasa mooro toyaala ko numaya bi suutola ni suuta min yaalon ko alla ya haaje kiila manto alayhi wa ka bee konton konton diroo ton koto maabi jam cee mouhammad suwan atelier kii ana dooma abdallah wol bee min taamoo bee wolon faama cheikh ahmadou suwan abe ñim anim ani moman deŋal mbok yi ginnaaw bañ sante yalla julli si bi sallallahu alayhi wa sallam sante suñu borom bi kennal ko xamni mom rek moy laataa nit di ko sant moom ci boppam moo sant boppam ba pare ba mu yéegee boppam mu xam boppam mu ñuy bokk jox ni loo xamante moo gën ci àdduna bi ak li ci biir suñu borom bi subhanahu wa ba muy yëngatu si aras mu xool ci kaw gisul dara xool ci gauche xool droite xool ci kaw xool suuf gisul dara laataa doomu aadama di kat sant mu sant boppam mu ne alhamdulillahi alladi ibtada bi hamdi nafsihi qabla an yuhmadahu kulla haamidin wasallam ken du mom wallahi ku sopp yonente bi sallallahu alaihi wasallam da nga yëkkati sa loxo sa kaw mbokk yi guddi dina uta guddi yu bari yu fi jallon ndax tay ko xamanteni ni ñu gënal suñu bopp gënal ñu suñuy waajur gënal ñu suñuy soxna gënal ñu doom gënal ñu suñuy wallahi mooy seydina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tey moom la ñuy waxtaane xel yàlla suñu borom subhanahu wa boppam la njëkk a tag mu jël yonente bi sallallahu alayhi wa sallam féetewoo ko wa xalaqahu li zaatihi wa addabahu wa axsana taadibihi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na adabani rabbi fa axsana taadibi yàlla moo ma yar تمويا رفتا لما يري صلى الله عليه وسلم كان دمو سبحان سبحانه وتعالى والله سدو الله صلى الله عليه وسلم خلو بن جام خلو تو سورنا لب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت loo tax sang bu baax mi cheikhul qadim radiallahu taala anhu ñu laaj ko ñu nekk kam mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam soo demee wa kaana xaqan alayna nasru muminin mi wa shahida kulla sayidin yuqtaar bi anna ahmada huwa almuqtaar yanqaadu lilmuqtaaru ma siwaahahu وقر له فضلا وقد حواه رسولنا فاق الجميع الرسل والانبياء وهو الحبيب المرسل صلى الله عليه وسلم محمد حسين قداد شيخ القديم من دفنا لنك ويرو ما دار ينتل صلى الله عليه وسلم لا جبل سما عادي فاجو منك والله بيز بنت كن يا كارو لن كدول موم فهو وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أهوال المقتحم محمد البشري هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أهوال المقتحم سنتوانا كدنا قو والله بما تهوى مخلل الدنيا ba mu waxee si yaa rahmaan rahim ma ne irham jamial wara ñu ñuy Cheikh Khadim lu tax nga wax lool mu ne wallahi wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan zahar wa misluhu qattu lam yura walan yura fi shiyam ahmaduna rahmat فرحتنا وجود مزديم شيخ القديم ñu ne bisu fente yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah ne Cheikh Ibrahima Niass nee na lépp lu mu mus digle mus def lu dul julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa salla alayhi bi وهو هو هو وملائكته ثم أمر جميع المؤمنين من الأولين والآخرين أن يصلوا عليه ويسلموا فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي مومتي بوبوم لنجتك جاغلل mu ne man yàlla kenn bu mu xam nag lu mu jullee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loo tax mbokk yi bisu penc képp ku ñu ne demal nga ñaan intervention day bañ su ne leen lu tax ñu ne hee ñun ku nekk am na problème suñu borom bi subhaanahu wa taala jaam yi jaaxle ñu jaaxle ñu dem ci mama adam alayhi salam ñu nek tay bis bi tangana lol eh tay yonente yalla adam waxal naaj bi jégué na ñi ñi sonu nañ mar nañ mu ne tay man da aw moo lu may plaidé wallahi ndax dama togn suñu borom ndax daf mo waxon garab bu nek sa aada ajjana madame dem laal ko problème boobu motax ñu ñëw aduna ñu la yoyante yàlla no alayhi salam ñu la ko ñu la ko yow nak mu ne jégal len ma ndax man ben sànni tatu la amon ben ijab rabbi la tazarni ala al ard min al kafirin ad dayyaara إنك إن تذرهم يدلون عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا من سانجي تاتو لا امون ما جاخل لول ام ايجا من يالا رك الاغال توكي لال ادنا كون تاي ما مونو ما بلاد الله اكبر ني يالتي يالا موسى ني ابراهيم خليل الله yonte yàlla Ibrahima yow nak tay ji muna xariton nak mom lol daf bama jaxle daf ne ya nar kuni bardan wa salaaman ala Ibrahim muna way waaye ma am erreur ndax dama anda sama soxna buur bi ne ma ki kala ma ne soo ne won su ma ne woon sama soxna rek mu jël ko sama loxo ma ne ko kii sama jigen la mu ñaarel bi dama dem yàq alak dem detuy xërëm yi fa nekkoon ñu ñëw laaj ma elé ko mo mané laaj leen xërëm ñu ndaw yi kon man dama am problème dem len séti keneen la ilaha illallah ñu ci yent yàlla musa alayhi salam ñoo ko musa yow mi nga xamni yàlla dafa wax ak yow tay bis bi metti na lol jami jaxle nañ eh dama so borom nga plaide ko mu ne eh mbugon na ko lool waaye tey munta nek ndax se dama am ngant ñu ko yente yàlla ba ngant nga am mu ne ah, ndax dama ray luma war ton ray mu ne kon jàll لا إله إلا الله نيوسي أنتي إلهي عليه السلام نيكا جامي جاهلنا بس بي متنا مر بي خيف بي نيني ري انت سنو بروم بي والله دو دم نجاكار لك سنو سبحانه وتعالى eh mu ne leen dama am ngànt man mii nga xam ni man jaamu yàlla laa wallahi ñu ne ma doomu yàlla la kees boobu am naa ko ma dem jàkkaarloog suñu borom mu ne leen jàlle leen laa ilaha illa allah sëñ laa ñu ñëw ko jaral laaj eh, jaami ñëw ne ko muhammad محمد محمد محمد لا اله الا الله نيكا مني لخيو نيكا محمد صلى الله عليه وسلم نيكا بس بي متنا والله جفنا مني لا مو اه لا تعمل لا تسيب سبحانه وتعالى نحن جنغو كوك موي واجي واي والله شيخ محمد سالم سبحانه رضي الله تعالى عنه من وسيلتنا فيما نروم ونرتجي الى الى الى الى ربنا المختار اقوى سلالم وسيلتنا فيما نروم ونرتجي إلى ربنا المختار أقوى سلالم وسيلتنا فيما نرم ونرتجي إلى ربنا المختار أقوى سلالم والله شيخ محمد سالم سؤال رضي الله تعالى عنه يونيك الشيخ بالله موضوح سبقان تهيان صلى الله عليه وسلم من وأقبرني هادي عمين بأنني وليد من القوم الكرام الجماجم وأخبرني الهادي العمين بأنني وليد من القوم الكرام الجماجم والله وأخبرني الهادي العمين يؤمن بأنني وليد من القوم التراه الجماد والله أنا صبي أنت صلى الله عليه وسلم نلا أنت صلى الله عليه وسلم لأنك بل محموم إيه، بل محموم يلا شيخ خدمنا بالله billaahi bisu penc yonent bi sag la ñun waaye su xoolee si ginnaaw dafa naan Cheikh Ahmadou Bamba yow sag nga si jaami laa ilaaha illallah bàyyi boor Moustapha bàyyi sëñ Fallou bàyyi sëñ Saliou Mbacké wallaahi ñu ne yonente mu ne lu xew yàlla ne ko eh, loo tax Mouhamad Bouchri turja shafaatuhu لكل هول من أهوال المقتحم والله يا يلقون سوف يعطيك ربك فترضى يا إيه محمد كي كان يميل بان الدول يو ركلا دكين نبتل سن خلمة بن يلا نبلن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربك لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا سولن دجلون سين خل ميك داي لب كن خموكم من يالا رك ماكو من ماكو ساك لا اله الا الله يا إيه محمد لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليهم ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لو تجد صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله فالمستمسكون به ويمستمسكوا بحب غير منفذ دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم الله محمد بشري yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yëkkati waaye suñu sang bi suñu yaakaar àdduna àllaaxira Cheikh Mouhamad Salim Souane radiyallahu taala mu ne bis boobu des si ñu ne que lu xew Mouhamad Salim xew Mouhamad Salim mu ne billahi takk leen seen dégg وإن كنت في تاب لأجلي لأجلي فسوترا أنا عناتي مشمير تقي مسالم وإن كنت في تاب لأجلي فسوترا أنا عناتي مشمير تقي مسالم وإن كنت في تعب لأجل فصوتر أنا مسمير تقي مسالم والله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا suñu borom bi ne subhanahu wa taala waykat bi ne maa مادحون وربنا يثني عليك وانه لجليل لولن وقت لولا وقت سني بروم لا ليس له ما يقولون الى التكرار وتفصيل ما اجمله سبحانه وتعالى في مدحه ليتلذذوا به ويتبركوا فينالوا به رضاهم تعالى الذي أوجب على نفسه أن يصلى عشر على كل من صلى عليه مرة képp ku julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne benn yoon man ma julli ci yow téeméer yoon ñu ne ko téeméer yoon mu ne junni yoon ñu ne ko yonent bi junni yoon mu ne sa yaram araamal na safar sallallahu alayhi wa sallam bis boobu kenn du moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam النبي صلى الله عليه وسلم والله لبلن كتاك تجيكو يلا سبب موك انجا كتاك نون نون والقلم وما يسرون ما عند بنيمة بربك بمجنون وانك لاجر غير ممنون وانك لعلى خلق العظيم صلى الله عليه وسلم يا كارو جام لا تساه الخدمنا بما يجمع سير مع الأبرار هنا سير وزن لداني هناك سير أسير مع الأبرار هناك أسير أسير مع الأبرار نسير وظن اليد هناك أسير شيخ الخادم الله أكبر من بلغم أسير مع الأبرار لك شيخ الخادم كوندل mu ne sama mbokk yëpp laa àndal ñu ne ko koo àndal mu ne àndal naa El Hadj Malick si radiallahu taala anhu Cheikh Xalim koo àndal mu ne àndal naa Cheikh naa Cheikh Mouhamad Salim Souane radiallahu taala anhu ñu ne ko Cheikh Xalim koo àndal mu ne képp ku baax nga xam ni mu ngi naan ashhadu an laa ilaha illallah ñëppee nga Cheikh Xadim lii ngay def ni wéetoo ci mu ne waaye nasar nasraane ñuy teg ni ñune man otage la wa zanna al hida anni hunaka wallahi duma duma otage duma san otage mission moma ma tax sallallahu alayhi wa sallam la hen mune man Cheikhul Khadim radiyallahu taala dama juk dem ci suñu borom malayka foofu yàlla subhanahu wa taala mu tekki sama omb mu xol am ba bi gis mu rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, mu nek Cheikhul Khadim lepp lo liggey amul njariñ la ilaha illallah mu nek ak yalla do mako ko ñaar yon mu nek yalla sun borom do mako waxat ñaar yoon mu ne ma laxasaayo mu ne ba egg si Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, fekk ñu jël place yeb mu ne ma lu rasul sallallahu Alaihi Wasallam. mu ne ma fekk rasulullahi si ñoon bi ma ñëw ci sama teggin mu ne ma yow mën a anta yow yaay kan mu ne kan yi waxuma ko man maay diw maay diw mu ne ko def dafa anta al karim anna al qadim dahril udim fika sada la ilaha illa allah cheikhul qadim loo tax mu ne way ilayya qaada li ma lam yakun wala yakun كل أبدا لممكن yàlla may na ma lu mu dul may kenn te du ko may kenn ñu nekk lan la mu ne wallahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa am ilaya qaada li ma lam yakun wala yakun li abadan li mumkin yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ma yàlla may ñu ne ko lay njëkkante bis guddi bi مولاي لبلوم تيانت صلى الله عليه وسلم لا امي تي القران الكريم لا امي نيكو شيخ خديم كتاب كريم من كريم مكرم لعبد الكريم القديم يمير كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخير من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير والله يكشف خديمنا كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد المجيد للكفور يدي كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد المجيد للكفور يدور كتاب مجيد للمجيد ممجد لعبد المجيد للكفور يدور والله كوك موي باي فاطمة بنت رسول صلى الله عليه وسلم يا كارو جامي تاي اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم لواي دوور di wut dama ci ron yonent bi sallallahu alaihi wasallam dama ci ron yonent bi sallallahu alaihi wasallam so fa nekkee lépp lay fek lota cheikhul khadim ne bàyyi ma tan xaadimu rasul ndax lima am lu nek mbindaan bi lañuy laaj ci néeg bi bagage yi fa la tegu mbokk yi ñuy sante ñu sant suñu borom bi subhanahu wa taala moom mi ñu jagle yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne guddi gi lu muy rëy rëy amoon nañu fi romboon ñu jox leen ko waaye nu mu melee ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek lañ ko jox sallallahu alayhi wa sallam lota tax ma ñëw ci sama sang bi Cheikh Mouhamad Salim radiallahu taala anhu ñu laaj ko la ilaha illa allah kenn du lan mu ne wa sirriya law alqaytuhu fawqa may لقام لقام بإذن الله يمشي لسالم وسري لو ألقيته فوق ميت لقام بإذن الله يمشي لسالم والله وسري لو ألقيته فوق ميت لقام بإذن الله يمشي لسالم والله xol bi mu ne am naa secret boo xam ne su ma ko sànnee seen néew yii tëdd wallahi dina jóg si kattan suñu borom mu dox si sama bari ñoo ko law moo ko may mu ne Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Mouhamad Salim mu ne ma may fekk lu naqari ma neexal ko ñu ne foo ko dee moo sirriya law alqaytuhu fi buhurina la saarat bi iznillahi azban li taayimi wa sirriya law رأيته في بحورنا لصارت بإذن الله عذبا للطائم والله وسري لو ألقيته في بحورنا لصارت بإذن الله عذبا للطائم ونمم فكسن بحمي تغو مصف حرم mu ne wallahi am naa secret bu ma su ma ko sànnee seen géej mu mel ni suukar bu ñu lem ñu ne ko loolu la moo koy mu ne muhammadu rasulullah mbokk yi bisu guddi gii ngëneel bi ci nekk yàlla nañu ko yàlla jox si barke rasulullahi sallallahu alayhi wa di sant bu baaxa baax tànt bu yànj bii ci turu sëriñ bi nga xam ne ñun mënuñu xamuñu lu ñuy wax su rafetee rek ci kilifa yi la di ko jëlee suñu xalif génération El Hadji Ibrahima Souane yal na yàlla guddal fanam wéral ay cëram li yëpp moom la yëpp moom la lepp loo leen fa gis mom li yëngatu madina swani mom ndax bàyyam moko ko jox kun fa yakun boram jamon loo tax ba Cheikh salih mbake radiyallahu taala anhu dafa ne leen bu leen ma ko wallahi xamna fiñ koy oo aras ndax mom mom ñoy tok wax le ma leen koy oowee fi cheikh salih mbake radiyallahu taala kon nak lu neex du doy señ bi ñu ngi delloo micro di sante njaatige geey di sante suñu jigeen yi suñu baari muso yu rafet ju fi tew Adja fat Bintu ahrakam yeb ken bayul ken geel yi nyop doy ñep soppe yi xarit yi sëñ wax na lepp waaye nak di beral loxo señ bi si bopum moko wax suñu wajur bi fi tew Cheikh Ahmadou Soane nga xam ne bi jotayam la lépp mooma moy wax di waxal moy dogal di dol di ñaanal yàlla may ñu wér ñu kay téw ak mom ay déwén déwén asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu muhammadu jambeto ñene saabula daa fewnu ɓe dadaata kayroo sotota la ilaha illallahu la ilaha muhammadu mustapha kuɓalula kuɓa inayeta nin taɓe kela muhammadu mustapha kuɓalula kuɓa inayeta nin taɓe kela ɓaɓa kolanali tata duwaño zandaramo polisi ite mutalan la ilaha illallah la nanalita da duwanyo zandara mo polisi ite mutalat la ilaha illallah la ilaha illallah hammadu jambato ina sabula da fombe da data kairo sototal la ilaha illallah la ilaha illallah aba kuna bimbaluta wulula bela dunyo kete yebo ila tewolan la ilaha illallah la ilaha illallah wàllu si Isaa mooy daan la ilaha illallah la ilaha illallah bari ma jabu sole sabu makanin jamu jamu ne marwani safuwa sotota la ilaha illallah la ilaha illallah baba ko na diyata musoto nyimma na ku yata musole fota la ilaha illallah la ilaha illallah idun kulude jannabe maralani ya mara duniya sida la ilaha illallah la ilaha illallah dafoo ko doon aliman kese la ilaha illallah la ilaha baba koy damara ko be bu ka sa da dafoo ko doon aliman kese ya la ilaha illallah la ilaha illallah shukran